Espagne mi tulli Croatie yëglekaay ñett yi nekk Espagne gars yi jàmm ji am fële ca euh, Allemagne euh, ci diggante Barcelone Real Madrid am réero amoon na waaye lépp tegu na ci yoon ki ko def nag Carvajal ab défenseur la ak ab centre gauche sax wala millier gauche wala attaquant lépp luñ wax ci Lamine lu mu mérité la ndax gone gi yaakaar naa ni la mu coppati démb mbégte la ci képp koo xam ne football meilleur ngay topp gars yi image bi rafet na image bi bokk na li tas ci àdduna wala ngal kàpp nga xam ne démb ba tey ñu ngi koy partagé mu tuuse ma lool ndax mbégte la waaye gone gi fukki at ak juróom benn séngam la am am la toll ci euh, Euh, ñetti téeméeri fan ak euh, wala bokk euh, ñetti téeméeri fan ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ne loolu la seize ans trois cent trente huit jours nga xam ne titulaire la def ci diggante Barcelone ak équipe bi la nga xam ne mooy Croatie yaakaar naa mu dugg ci histoire boo xam ne bokk na ci seen footballeur yi nga xam ne commencé na nan lii di euro bi ci histoire loolee nekk mbégte comme ni ma ko waxee léegi beneen bi ci topp aasa ko andi aas yëglekaay nga xam ne ñu gis ni yaakaar naa ne fi mu toll nii maanaam grandeur bi nga xam ni équipe espagnole bi mi ngi koy commencé di jóg ndànk-ndànk soqiku Carvajal mu bënn bët ya di jooy image yi ngeen di gis ci côté càmmoñ bi gis ngeen ni yaakaar naa ni gëmm na te gëmm bu ko xippee ay rango ñi mbégte mooy tuuru ci moom loolee tamit di nekk doomam wala jarbaatam bi nga xam ne wax dëgg yàlla defal na ko loo xam ne teraanga ju ñëpp di waxtaane ci marka yëglikaay mu ñëw tam indi ñetti bal ci daje nga xam espace mi nga xam ni maanaam tasaare na équipe bi la di uh, Croatie bu Luka moom it mu sëngeem uh, ci match be am lu ko naqari waaye moo la gën a xam ni uh, football espagnol ak bu Croatie deseen njaw deseen na xam ne ndax li ko Espagne rawee bari na lool loole tamit mu comprendre ko tey Espagne wala boog Espagne du Madrid Croatie du Madrid loolee nekk lu am solo gars yi Tabaski incha allah suba la ñaanal leen jàmm baalu leen ak di ñaan yàlla ah, baal nu ñun ñëpp nag jéggal na suñuy bàkkaar ci bis bu sell bi nga xam ne ah, subaak jàmm samay abonné ak àdduna wala ngal kàpp ñi ngi ko dëgmal xam naa ne danañ ci dikkaat ci ay xët sax ci kanam tuuti ah, jërë ngeen jëf